bismillahi rahmaani rahim ñëw ci nettalim ñeent fukk ak juróom benn wala ñu ñëw ci nettali ñeent fukk bi ak juróom ñeent sëriñ alsey njaay radiallahu taala daa yónnee hadiya yu wuute ay xeet bisub talaata ndax wax ndaw ya ñu waxal ko sëriñ tuuba xaadalawu law maxtaara yoon ni ko bàyyi na boppam bàyyi na ay mbokkam bàyyi na àdduna ak lu aju lu ci aju ngir jëmmam bëgg mu dimbali ko bañ koo bàyyeeg boppam wala ay mbokkam wala àdduna wala waa àdduna ba ko ndawee jottalee hadiya ja ak wax ja sëriñ bi wax nañu woo fere yi jigéen ñu ñëw mu daal di digle ñu baamu wax ja ngir ñu dégg ko ba ñu noppee mu ni leen nee leen ko dee su ko bàyyi ak kenn mbaa lenn boroomam la ko dee si booleel ku ko gisati jëmmi boroomam lay gis ci mom daal di wax ndawee ni len ñu wax sëriñ ëlsey wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ba bis ba dellusee la ko bax ci fanan ci touba siwna su ko defee mbooleem netali bu ci am ak wute dina ko ñettaliwaat insha allahu taala ndax bi indi woon naa ko ca waxtaani Serigne Touba xaadalahu law maxtaaru lahoo mel na ni ku gis bii nettali xam ni moo gën a jot moo gën a wér Serigne bi xaadalahu law maxtaaru lahoo mel na ni li tax muy woolu fere yi te ñooy taalibe yi daa bëgg ñëpp dégg waxi Serigne Alsey Ndiaye radiyallahu taala anhu di leen xamal ni mu wax ak noonu mu def la ku nekk war def li waral moo inna allaha la yaxfiru an yushraka bi sunu borom subhanahu wa taala bëggul ku koy bokkaale ak lenn boo ko bàyyeeg sa lépp nag mu daal di féetewoo sa lépp kon fi mu ne ab taalube bu mu mën a doon li feeg deful nii sëriñ Alsey def radiallahu taala defagul la ko war yàlla nañu yàlla dimbale ci ci jox sunu lépp sëriñ tuuba xaada lahu laaw maxtaara mi nga xam ni moo fi nekkal yàlla subhaanahu wa taala walaahu